يا ناين فينا خمل الصفات قبر زماني وساخب القلوات شيخ بنويت مجودا متمرسا بتلاوة القرآن بالنعمات شيخ بنويت خليفة متميزا دمي أك شيخي نينا كن دسول waa Rabika ñépp teew nañu ne mi ngi leen di wax jàggeen jëf ne li mu waroon wax yépp ne na wax na ko buuna imaam wax na leen ko ne li ci des daal mooy ñu góor góorgóorlu ragal yàlla wóolu yàlla doyloo yàlla ne buñ ci jàppee rek du nu juum duñu jawale, neena wa taqwala nanu ànd te ragal yàlla lépp lu def nan ci boole ragal yalla buñu ko defé inshallah allah lu nu soxla yépp danañ ko am ne ay rakam nak ñi bokk ak ñom bu ne jagen jëf setanu len ko déedéet lepp ñom la fi nekk yëpp. li fi nekk ñëpp. lu dul ñoom rek taalibe yi rek. lu dul ñoom rek taalibe yi la. jaageen jëf. ne xolam sedd na guy. nee na waxtaan wax dëgg ci la. Eh, sonn nañ ci man sonn nañ ci moom lool. xam na ni wéruma. xam na ni moom mi wérul. waaye terewul. waaye terewul. heure bu ne ñu ngi ci wetam. ñu ngi waxtaan ak moom. di diisoo ak moom. Eh, di ko ñaanal yàlla. kon ay rakkam. jaageen jëf. am na mbégte lool ci yow leen la seen bàyyi waxoon topp leen ci alxaaji Sidi Maxtaar bu baaxee topp leen ci moom bu melee neneen topp leen ci moom nee na bàyyiwu leen ci dara mi ngi ñaan nag bu juumee ngeen jubbanti ko muy rakk muy mag muy rakk muy rakk muy taalibe muy taalibe muy muxaddam muy muxaddam muy cheikh ku mu mën doon ku mu mën si bu juumee rek jubbanti leen ko ne bani aadama mënta tàggoo ak njuumte kon bu njuumte amee nee na mi ngi sant ñëpp nag ngeen jàppale ko ci bu baax a baax ne ñi nga xam ne mooy xeet yi fi nekk di ñeeñu yi nee na sant na ñëpp gërëm na ñëpp ne Abdou Mbaye mooy sunu kilifa jàggeen jëf Abdou Mbaye jërëjëf ne taxawaayam ñu koy koy lu bu baax ci kilifa yi li moo kilifa yi ma woon ne tey ñëpp dem nañu ne na moo fi nekk ak ñun bu nu ko gisee rek xelam dem ci seen xel dem ci kilifa yooyu nee na sant nañ ko gërëm nañ ko ne li des ci waxtaan wi nag. incha allahu ci ngoon gi lay doon incha allah dëkk leen ñu la ñaanal leen tàllal loxo yi واستفتحوا وحاب كل جبير عنيد لا حول ولا قوه الا بالله اللهم انصر من نصر الدين وخذ من خذ المسلمين يا رب العالمين اللهم لا تعذب الا غفرته ولا هما الا فرجت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين وسلام على الحمد لله رب العالمين امين يا رب العالمين لغي نك فامي جن اك فامي جاورا نغي نيو يانا ينفينا خميد الصفاتي كبر زماني وساخب القلوات شيخ بنويت مجاودا متمرسا بتلاوه القران بالنعمات شيخ بنيت خليفة متميزا وقلاثة